gore la nabe nabe nabe Abdoulaye ku gore la nabe nabe nabe lan bi Abdoulaye ku gore la nabe nabe nabe xaru lan bi Abdoulaye

moo war a daje Buur Siin xale baa ngi noonu gonek Malika la nee naa la moom général bu Malika xool ko borom lit simple ngi noonu ki moo mujj ci kaw Serigne xool leen ko ndaanaan la ne tuddati sax baal leen ma àq. gars yi pare ngeen ah asalaamaaleykum wa rahmatulah waa waa Malika Malika Kër Masar ah Buun Yëmbal Ballu Baay Ñaax montagne Mbëbës montagne ba ah benn baraak ba ba ngay dem Caaroy Gaarak ah cité Sonatel kon ñu ngi nuyu waa banlieue bi yëpp yëpp yëpp tey nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy biir Malika xolu Malika lañ nekk certificat général Malika mu mun nag mbër bi nga xam ne nag. yaakaar naa ne pël bu rafet dimanche le besu bésu Noël yàgg naa ay bés yu mag ñoo ci daan am Baba Diaw nag cam production indiwaat ci bés bu rëy gala moom nag moo war cee dajeeg Boursin mbër mu we xat xat xat la Boursin la la la général am dimanche bëgg nañ la. Babacar ñu ngi lay fay. Uh-huh. ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi. di gërëm sunuy waajur. Mm-hmm. di nuyu waa Malika yëmbal benn Boune Kër Massar Alba Ñaax Montagne Mbëbës. ñàgg ñàqorop Daaru Cubb Tiawoon Pël Jaxaay 1 Jaxaay 2 di nuyu waa Malika cité Sonatel fii ñu taxaw nii di nuyu suma waa écurie di nuyu képp ku fi ñëw tey di ma jàppale bàyyi sa temps ndax temps dafa jafe. Mhm. képp ku ñëw bàyyi sa di ma jàppale maa ngi lay sant di la gërëm. di wax ne affaire yi metti na comprendre nga. Mhm. amaana lu yëngu lu nekk rek la ko yëngal ko ëpp doole. Mhm. lii lépp xam nga képp kuñ fi buux te tey ñu ko ñu ngi koy jébalu. ndax képp ku fi ñëw yaakaar naa defar moo ko tax a jóg ñu mën bàyyi xel rek te xam ni gars yi nga xam ni ñoo topp suñu ginnaaw di defar defaral leen tax yi képp ku nekk ànd ak mbër ñëw bàyyi sa yite yëpp nekk si ginnaawam couvrir ko di ko di ko taxaw amaana defar nga bëgg bu loolu weesoo képp kuy mbër dagg sa yite ñëw fii bàyyi sa temps maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay nan la defalu ma defalu ma la lu tax nga war a bàyyi sa yite ñëw amaana ñi fi ñëw ñëpp dañoo baax mais maa ngi leen koy jégalu naan leen vraiment kontaan naa di rafetlu tamit teewaay bi fii gaa yëpp képp ku fi teew rek maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm te di la jox sa waa ci waay di jégaluwaat nag di jégaluwaat ñëpp di jégaluwaat waa koñ bi di jégaluwaat su may soppe di jégaluwaat su may nit vraiment maa ngi jégalu ñëpp ndax bëgg dafa metti quoi <laughs> mhm. yee man doon naa ñëw sa open press defe naa ne am naa bu ma fi mu jën ñëw maag pël bu rafet <laughs> ñoo fi ñëwandoo woon mais defe naa ne booba fa nga ko defee woon tolluwu kon nii bayal ba mhm. mbooloo mi wu kon nii mhm. mais tey mbooloo mi ma gis fii ay camion sax man camion ca laa ko fi jotoon gisee waaye camion yaay deuxième fois bu ma ko gisee waat njëmbët ay njëmbët ay saret lu na gis naa ko fi tey Jakarta moto yi lan lan sa diggante waa Malick ak ak ak waa secteur bi lu xew mbooloo mi tey. moom laa lay wax secteur yi ma la tuddal noonu carrière yi aw ma seen fay. mais loo def laa wax ba. fay gi kay wax lan nga leen wan ba tax ñu toppale nii. cër la rek. ndax làmb yaakaar naa lépp ci am ndama ci am defet mat si nii lépp ci am mais hors làmb dañ koy dund ak ñoom bu dul làmb joxe cër wàccee suñu bopp respecté ñëpp mag ñu mu moom xale ñu jox li mu moom loolu képp la di nuyu tamit sama gars yi nga xam ne ñoo nekk suma ginnaaw ndax benn lam kase du yëngu nee naa la doomu aadama des fois dangay ngay toll foo xam ne boo geesoo gisoo kenn rek day metti mais man sant naa yàlla Mhm. ndax tollu ma fu may amee ba fay ñàqee mais ñi ma àndal mention spéciale. ndax taxawu nañ ma ni ñu ma war a taxawoo. Mhm. tey ku xool li fi ñëw xam ne tey jii ñi fi ñëw amaana. Mhm. mooy loolu quoi mais du ma def lu dul di leen sant. te bu làmb jaa ngeen di gis lu gën a yéeme camion yi yu bëri ñëwuñu. yeneen ñëmbat day ñëw wallaahi azim yu bëri ñëwuñu am na yeneen yu war a ñëw 16 mètres yi daa war a ñëw. Ah. maa la wax loolu 16 mètres yi daa war a ñëw. ay benn ay benn. non yàlla baax na waaye benn yi moom bu ñu ñëwee lu coow li bëri bëri bari bëri bëri bëri ak lu suuf yi bay bëri fecc meeg tëgg maag wayya day am moment boo xam ne nag yow général Malika ak Bour bu bawal képp ca gannoof ga loxo yi war a jóg ak arbitre bi moo leen di ñett ñetteel defe naa suma jumul ak ñaari sisam ca côté ya ñoom ji li ñee wax rek la ñuy mën di def bu keroogee ku yiy dem nga jël mbër moo xam ne naa léegi neexul deret Bour Sine ñi mën a xeex te ñi mën a bëri waaw Bour Sine duñ def lu dul di ko nuyu ndax adversaire la comme adversaire yëpp yaakaar naa man tollu ma fu ma adversaire di dépassé mbër mu ma respecté la nag di ko ñaanal jàmm di ñaanal suma bopp jàmm làmb ji yaakaar naa sàkkuwuma ci lu yomb ndax bu doon lu yomb li gën a yomb làmb gi te tey ñi ma topp nii toppewu ñu ma lu yomb bu ñu xamoon ni ci lu yomb laay dox amaana duñ bàyyi seen temps di fi ñëw kon moom maanaam dama koy ñaanal jàmm rek ba ba aw ma leneen lu ma koy wax fi mu toll nii tolatuñ ci wax jëf rek la des hmm. waaw di ko jàmm laay def ba bis ba mais waxtaanu buur itam wax xam nga fii moom waxanu fende ñun. bu làmb ja waaw. bu weexoon benn. maa ngi koy ñaan yàlla na ñëw weex fukk. te yàlla tax loolu laa koy ñaan. Bour Sine lu mu weex doyul. barki ah. rasulillahi sa weex boo ko wàññee baalu ma la ko. man ah. général maa ngi lay ñaanal yàlla na nga gën a weex. te xam ni man sa la ma nekkoon bu yokkul du wàññeeku. mais bu weexee xat mbaa dina baax ci yow. loolu laa bëgg man bëre naa ba ba toll fii nii musuma dem ardo te laa mu jot damaa bëgg ñu dem ci fépp. Ah. da ngaa sama kanam cicatrice am na ñoo xam naan français la te du ma ragal Hmm. mais dajeeguma ku war a mën a suul tànk yi ñu dëggal suñu bopp. Ah. samp jaaga. moom suulkatu tànk la de. waaw man loolu laa bëgg bu bis ba nañ suul suñu tànk. ngeen jëflante. bu ba bis ba nee naa la man fi mu toll nii lu ma wax rek dañ naan waxati naa instant bi jëfuma dese. mais kii dama ko dégg léegi Kara Dollé. Mhm. moom xam nga Kara moom mooy Kara rek moom. Mhm. moom nee na maanaam mbëri bawol yëpp bawol bawol sax la koy yëpp rawatina mbëri yi bu ñu rangoon nga def leen ci maanaam nga ñoom ñëpp nga daan leen. Kara doole mii ngay gis nii. suñu mag buñ jox cër la. waaw mais moom dañ koy yenu di yéeg ak moom ci diis ci diin yi. Kara mii. te foofu amul mbër mu ko ëpp. Kara mii koy yenu di yéeg dama koy yenu di yéeg din mu ngi nii laaj ko. dama koy yenu di yéeg din kon man du ma taxaw di waxal sama bopp ñoom xam nañ mais nag kullu mbër bu fi teew nuyoo bi dama koy teg moom ci loxoom ndax mooy seen mag. yee. Ah. waaw. jili wala ku ci am loo koy laaj. waaw. changé écrit changé lan moo tax mu changé écrit laaj na lu am solo de. beneen général bu beesal bi yeesal nga ci écrit beesal ci open press yi beesal ci général ji lu waral bees bees yi. waaw mais jëmm yi ma doon àndal beesul ñi ma doon àndal démb ak bërki démb ba tey ñoom laay àndal yaa ngi may dégg équipe Malika mbooloo bi ñoo fi teew ñoo feesal fii ñi ñëw nii ñëpp ngay gis nii ba waa Malika xam xam nga leen. waaw gis ngeen fi ñoom Bill Désert. waaw gis ngeen ñoom Boy Malika. waaw kon taxali ko amul suñ diggante. comprendre nga. armée dañuy ñoom ñëpp ñun amuñu xaajaloo ñun foo ñu mësaan fekk ñu ànd di booloo di entraînement munoo xàmmee ku nekk benn baraak ak ku nekk Malika. armée fan la nekk du benn baraak ñaata yoon nañu ànd di entraîné. ñeneen itam mooy loolu ñun famille lañ Malika benn baraak ñun ñëpp famille lañ dafa mel ni damaa jógee ci kër duggaat ci kër ba suba suba su ma bëggoon contacter Malika mbooloo dama fay dem te Bulldozer dama ko war a may contact. ci lambam jëm ci combat bi te dama koy may ba mu neex. Hmm. on est ensemble ñun ñëpp on est famille. non du dara ay xale lañ dañuy liggéey ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom xeeb doole. ndax li ñu war a am hmm. amaguñ ko. sant naa yàlla ndax ñu ngi am xel mu dal te li ko waral mooy sumay nit ñoo dalal suma xel taxaw ma ci côté bépp chaque jour ñu ngi su ma su ma toogee sax xaw a guddee ñu ne ma demal tëddi hmm. ñun lépp lu war ci làmb ji ñoom ñoo koy def ñoom ñoo jël seen xaalis di dugg ci gaay di dajale di mobiliser di def ne di bàyyi seen temps te loolu dafa jafe te koo fi gis tey responsable la. Hmm. din ya dama ñëwal fekk ma din ya suuf sax nañ ko yokk man man arène nationale ñaata weer laa fa def regroupement. foofu miin naa ko bu fa gëjee bu baax. mais ni ngay tëbee ni ngay tëbee en tant que kii dama gis ngay tëb tëb yu metti mu mel ni da nga oyof eh, déet waay. yàqalu ma dara. Ah. yàqalu ma dara. su ma ko waree def dama koy def. mais kon nii athlète la boo xam ne yaa yaa moom sa yaram. buñ ma tegaloon dix Bour Sine ma bëreeg ñoom. arène nationale fukki Bour Sine. buñ kon su ma la déggee keroog boobu maanaam bés ba boo sañoon combat bi ngeen bëree ko bëreewaat bëreewaat bëreewaat bëreewaat xam nga dama naan bëre Casamance ñu bëri xamuñu ak réalité bëre Casamance waaw bëre Casamance boo waree bëre grand combat ñaari combat lay doon boo ah. daanee première bi yaay yóbbu drapeau bi waaw bu waa ji bëggee bëreewaat da ngeen di jóg ngeen bëreewaat mais bu làmb jaa bëre Casamance laa bëgg ñu bëre ko yaag bursin bëre Casamance daan ba pare ñëwaat ñëwaat bëreewaat <laughs> mooy jiili waaw waaw daa mën a xeex de. waaw fët fët ji. su lamb nii laay def. su ma arrière benn tànk ñun su ma arrière benn tànk. waxal ak moom jël sama reliquat. jarul muy teg reliquat am su ma la arrière benn tànk man tamit yabu ma waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar àll ba ñaax montagne mbëbës. Ah. yabu ma bay arrière Bour Sine. bu ma xalaatuma lool ah li ma koy wax mooy du ma li may wax. waaw du ma ci jugti di ko wax. bu amul jàmm. amaana lii du am. Bour Sine yàlla na la yàlla defal jàmm. bala 25 dimanche. ñëpp ñëpp ñëpp yéen presse bi yéen ñëpp ngeen am jàmm. ndax yéen bi sax day amuñu seen fay. delloo presse en ligne presse en ligne waaw. voilà parce ñoom ñooy dem fu metti fépp nag. billaay wallaay. bu taree la. fuñ mës a dem fekkee fekk fekk ngeen ñu fa. bi. presse ndax ñun kese di def open presse. te gisuñu leen wane woo ñu bëri duñ ko xam suñu koñ lay yem. mais jàpp naa ne moment ñun international lañ. waa diaspora bi ñu seetaan bu baax. ñëpp ak seetaan kon nag yéen presse bi fi teew yëpp bàyyi seen temps mm-hmm. presse en bi yéen ñëpp ñu leen di sant di leen Bour Sine ci xeex bi. kon léegi nañ bëre bu fekkee bëggul xeex nañ bëre. waaw bataille psychologique. non man nag wuy ma sama lamb yëpp damay xeex damay bëre. Euh. waaw bu lamb jaa léegi li gën a sedd mooy. Hmm. lu mu bëgg ma fekk ko ci léegi moom na diriger moom lu ma woo ma fekk ko fu mu baat nga coup fu mu baatee ma coup waaw. am na solo léegi nañ xeex ndax buñu nee damaa xeex ñu ne bëre laa bëgg waaw. yow yaa koy téye ndax ñëpp wax lañ la xam su boobaa jour ba boo dëggal sa moom mu man waaw yaakaar naa Bour man làmba boole moo tax may soog a wax ci moom quoi amaana su ma toogee di wax ci Bour Sine lan la may apporter man ku ma xam ci làmb jëf nga ma xamee fan laa mës a toog minimiser mbër wala ma wax ci mbër lu ñaaw man ci jëf lañ ma xamee kon nag Bour Sine yow yaa yor sa làmmiñ bu rëy rek di wax mais law jëlal loolu sa jëp sa baax la naa la may loolu waxal lu la saf mais ngir yàlla li ma lay ñaan maag yow du nee nga damaa bëri wax te ñëpp xam nañu yaa bari wax bu lamb jaan nañ xam maag yow kan moo bari wax. bu lamb jaan nañ xam ku bëri wax. waaw rafet lu mu laaj dañ koy def xam nga tey jii du ma jël li ngeen di def sama bopp bi naan teel teel balamba lamb ja ma ñëw taxaw mu may dóor may arrière du ma ko def. bu dëggalee boppam ma dëggal sama bopp bu xoolee leneen nag ma def li ma war. nga def li naan damay teey damay nangam. waaw dañuy somb tànk yi xeex bëre. Mm. def ci samp jaaga waaw joxal jóob waaw moom day rappel gauche dur droite loolu fatal ma foofu moom li gaay naan fatal ma foofu làmb jaa na a noonu arrièreal doo ko arrièreal doo ko waa léegi nag léegi rappel gauche dur droite na ñëw voilà léegi nag xam nga comme guddi na léegi dañ lay bàyyi nga tàggoo looy promettre amateur yi dimanche ci ambiance ak ak le promoteur santoon naa leen dama leen di santaat ambiance duma ma ko du ma ko du ma ko yem ak suma moroom ci làmb ku ma maaseel jamono fii ci làmb maa dàq ambiance loolu la yàlla dogal hmm. bi ci des nag mooy kuy xaar làmb ju neex làmb ju metti waaw làmb ju tàng sama hmm. diggante ak Boursin di nga ko gis bu sooba yàlla hmm. yàlla na nu suñ borom defal wér defal ma wér defal ko wér defal ko jàmm defal ma jàmm ba bis ba di ñaan suñu borom defal ñu ndam lu gën si ñun bu loolu weesoo nag di sant ñi fi teew képp ku fi teew sant naa la gërëm la chef de quartier cité Sonatel bi ñu ngi koy sant di ko gërëm

Kër Massar lañ bokk. maire Kër Massar monsieur le maire ñu ngi woo nan la lamb ji sa lamb la. Kër Massar kuy maire bi sax. monsieur le maire bi nu mu tuddati sax. Adama ah. Massar. non samay nit ñoo dégg li ma ma war a samay nit dem defal ma ko comprendre nga mais ñu ngi woo ci lamb ji rek naan leen lamb ji seen lamb la quoi vraiment. di santaat suma gars yëpp. su ma damay juum suma gars yi nekk si diaspora bi. di ma suivre ñoom it leen di sant. di wax